démb ci di heures. police dafa demoon kër Kounkandé yóbbul ko convocation c' est pas pour l' mais pour xamal ko ni ko lii ngi nga bëgg a def trouble à l' ordre public la du mën a am kilifa yi gouverneur ak préfet aaye nañ la ko ñu jox ko rek convocation pour mu ñëw wuyu si bu Médina.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 Euh, xale bu jigéen bi gagné concours général bi démb. Mhm, kenn su ma doon laaj duñ ko wax. Mhm. kanti xale bu jigéen bi gagné concours général bi démb. concours général bi ñuy def. meilleur élèves yi su ma doon laaj bi ñi ma ci mhm. tontu. du doo génn fii kay. waa soloon yëre jigéen doon composé gelam.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 ñi ngi bëgg rey nit ñi waxuma la wax lu amul rek mais sa waaye ni ñuy def ni ñi ni ñuy ni ñuy arnaqué population bi ëpp na ëpp goo xam ni soo ci waxee ñu ñu ñu ñu ñu ñu yow dëkkal la foo dëkkul mais dinañ def rek xam nga jamono ji waaw suba léegi nii ñu ngi may woo waaw